salaamaaleykum chers téléspectateurs dal leen jàmm ci seen émission jant bi bërëb bi nga xamante ni daf lay yokk fit ba pare di la leeralal xew-xewu réew mi fii nag di fi xam leneen lu bees ba pare dina lay yee loolu nag mu ngi xewee ci seen chaîne YouTube Actu Thiès donc ñëw leen ngeen abonné wu ngir ngeen bañ a rate benn ci suñu émission yi ginnaaw loolu dañuy dugg si du sujet tey ñu fas yéene waxtaani aada ak cosaan ñu ànd ceeg benn artiste buy yëngu ci artisanat ak tëgg jéeme mu fas yéene ñu nettali jaar-jaaram ci culture sénégalaise ñu setaan ak interview bu ñuy def ak Modou mbay di ak artiste culturel dëkk fii si Thiès. fii ci Thiès ñu nekk fii ci quartier bu ñuy wax Escale Nord tey ñu seet ci benn artiste buy wuyoo ci tuuru Modou Mbaye bitikam nekk fii ci ginnaaw benn école bu ñuy wax Sem idrisa jàkkaarloo ak hôtel Rex tey Modou mbay doon ñu wax jaar-jaaram liggéeyu artiste nag nekk benn liggéeyu noobu bu artiste yi di wone culture africaine. waaw man maa ngi tudd Modou Mbaye dëkk Medina Fall nekk doomu Medina Fall. nekk village artisanat yàgg village loolu nag def fa presque 40 euh, ans ñëw jàng fa métier nekk fa artiste bu mag di nekk cordonnier di liggéey ay dàll ak ay saak ak ay ceinture ak ay pochette ku ñuy wax say say président saa bu dee métier jàngal ba métier vraiment ba ni ma ñëwee ber sama daara waaw waaw fi ma jaar ci sama baay Malick bu Pène moo ma yóbbu village Azana mu nekkoon sama kër këru yaay bi ma yóbbu village Azana boobu maa ngi am 10 ans bon vraiment instant boobu culture bi dox lool boobu Senghor moo nekkoon président maay ngi fàttaliku Senghor bi muy ñëw village Azana boobu maa ngi nekk euh, am ay 8 ans yooyu yaa ngi dégg ba nuyu ma nii sax ba ñu joxantee loxo kon xam nga ko loolu yàgg na ma mbappat fa nag yàgg fa lool ba jàng fa métier ba xam fa lépp nag doo ko ber sama yëfi waaw damay yëngu ci wàllu artisanat di wala yëngu ci wàllu tam-tam parce que tam-tam moom euh, ñun ay géwal lañu fami griot lañu ñun ñu ngi ñu ngi dëkk euh, Tivaouane euh, juddoo Tivaouane sama yaay dëkk Ndiassane ci laa ñëw tox si Thiès ñu am kër Thiès dëkk Medina Fall mais ñun ci culture la ñu juddoo parce que ñu famille yëpp culture la. suñu famille yëpp ay artistes lañu suñu famille yëpp aussi ay artisans lañu. mu mosuma génn nag mais tenté naa ba sonn waaye nag su ma fameek su may xarit ak su may copain ak ñëpp moom ñu ngi ci kaw ñu ngi Allemagne ñu ngi France ñu ngi Italie ñu ngi partout dans le monde ñu ngi États-Unis fépp daal ci monde bi. waaye xëy na yàlla moom moo dogalagul sama tukki mais bu ñu yàlla mayee gudd fan ak bépp la ñuy tëgg rek parce que ñun dañoo am site am lépp ku ñu soxla dañuy woo foo ñu mën a fekk ñu dem tëggali la fu mën a doon ci Sénégal rek dañuy dem jouer foofu tërim suba suba sax mën nañu am Europe ànd ak bi dem comme ni ko gars yi defee Europe waaw fi ne mën nañoo xëy rek moo woo booy leen am nañ contra Europe tel tel tel tel wala taara personne mooy dem wala groupe bi mooy dem nangam nangam wala cinq personnes mooy dem wala trois personnes ça dépend ci ñooñu fan na soxlaa rek da am na groupe yu bëri yoo xam noonu la leen jëlee rek am contrat Europe yóbbu leen ñu dem. boobu ñun groupe boobu ñun groupe yi ñu jaar sax man groupe yi ma jaar sax dafa bari waa ñun groupe yi ñu jaar dafa bari mais groupe bii ñu am ñun moom déggoo la moom ñun suñu groupe déggoo la la ndax gaa yëpp ay Baye Fall lañu ñun suñu groupe ñëpp ay Baye Fall lañu tout maam Cheikh rek lañu yaakaar ñëpp la ñu yaakaar nag waaye groupe bu Baye Fall la muy bu dee jigéen ñi ay Fall lañu bu dee ñun ay baay Fall lañu ñun amuñu problème ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay mais groupe yi ma jaar moom bari na yi jaar ci bi moom li ma ci gën a neex mooy vraiment ngam am spectacle bu mag moo xam ne te bii tubaab yëpp a ngi toog ñun africains yi ñuy wane suñu culture di wane nii lii la ñu man tubaab bi di jël seen xaalis di ñu ko jox kontaan loolu nag bég lool ñu wane leen africa bi africa bi nii la mel loolu ma ci gën a neex su ma koy def damay kontaan parce que damay xool suñu maam yi fi nu jaarale des fois bu ñu ànd ak ñoom xool gore fi nu jaarale ah tey ñu ñëw di ñu bégee di jël suñu alal di ñu jox vraiment nga xam ni kon loo mag ña waxoon dëgg la li ñu yóbboon ñoom dinañ ko indiwaat waaw parce que dañoo sonal suñu maam yi waaw moo tax su may nekk ak ñoom man may kontaan parce que man su ma nekkee ñoom sax dañ may fan parce que man africa bi laay def man su ma nekkee ak tubaab ak façon tubaab bu mën a doon man africa laay appliqué man du xool ni jikkoy tubaab laay defa yooyu doo non non man dama lay imposé da nga ñëw sama kër sax ma teg raxasu mi ne la raxasul nga dama si quoi la raxasu fii africa c'est comme ça nga raxasu bu ñuy dànk bu ñuy dànk sax du ñu mën a dànk bu ñu dànkee ceeb bi ceeb bi day wadd nga pare mën la nan dem ci ndaal yi xam nga man su ma nekkee tubaab man li may def Africa maam ya man loolu laay def moo tax nag loolu nag mooy tax yow ñoom ñu lay topp nag waaw li ngay culture bi ngay sa culture bi ngay appliqué mooy war a mais boo leen day topp ci seen tubaab yow amul sens ñoom tubaab yi nañ ba pare de ñoom seet nañu correct nañu lijjatewuñu kenn ah maandu nañu mais da nga leen di xëcc Africa bi wane leen bi nii la mel. fii moom am na Sénégal yu ñu jox cër am na Sénégal yoo xam ne lijjanti wuñu xam nga sénégalais moom na ma yàlla baal kenn ku ci nekk moom intérêt personnel ngay xool kenn ku ne sa intérêt personnel ngay xool mais Sénégal moom bëri Sénégal dëkk bu ndaw la mais Sénégal su doon waxtaan nekk benn kon ñun dépassé nañ fii bu yàgg kon dépassé nañ fii bu yàgg xoolal pétrole bi xoolal euh, marbre yi xoolal euh, gaz bi xooloo or bi munuñu cee utiliser dara. tu comprends mais bu fekkoon ne ñun li ñu doon doxal ñu ngi koy doxalee fii kon Sénégal jërul sax kon tubaab yi daw di ñëw fii kon tubaab yi daw di ñëw fii parce que ñun lu ñu am ah kenn amu ko. nekk bis dëgg il fallait que jaaru école des arts. il faut nga xam culture bi parce que tubaab bi bu la laajee ay question il faut nga wax leen loo xam ne yow sa culture la kon il faut nga jaar école des arts jaar culture jaar ci bale yi jaar ci artistes boo nekkee pent nga jaar ci peintre boo nekkee te jéembe tëkkatu jéembe boo nekkee artiste wala nga usé batterie wala basse wala gitaar bu ci nekk am na fa ma nga fa nga gën a yokk sa xam-xam gën a yaatal say say mbir te internet bi moom lépp a ci biir boo tàppee sa téléphone lépp ngi ci biir. waaw parce que jàng du bees njàng du doy. ay soirées yoo xam wala ay spectacles yoo xam ñooy produire suñu bopp pour wane suñu bopp léeg-léeg ñu jouer sax perte mais dangay wane sa bopp léeg-léeg def ko nit wooñu ah daal ni fay loo xam ni moo ëppoon sax moo indi ba ban defoon wala soirée ban defoon mais des fois nga def ko mais da ngay perte mais da nga koy def pour nit ñi xam la. ñu ne ah diw kat ñëw joué fii ñu ne eh ñoo ñu joué woon fii wala ci boîte bi wala ci conser bi wala nangam nangam mais ñooñu soxla nañ leen ah nangam nangam ñoo fay la loo xam ne moo ëppoon la nga perte foofu mais soo toogee rek ni da ngay woo ku lay financé wala kii Sénégal ku lay financé kenn du la financé kenn. boo xoolee aide ci Covid bi nii ñii am nañu artistes yi am nañu artistes yi amuñu ba léegi am na artistes yoo xam boo dee ñoo ñu man de boy sama xaalis jotaguma ko ba léegi kon dèjà ñooñu ku leen doon xaar doo dund. waaw man jot naa man jot naa sama cinq mille jot naa sama 150000 ak yeneen ak yeneen ak yeneen parce que damaa xaw a bokk ci affaire bi damaa xaw a féete ci affaire bi aussi damaa xaw nekk ak kilifa yi damaa xaw a dend kilifa yi loolu ñu naan la la gën a jege gën a yey waaye ma sañoon nag ñëppay am waaw ma sañoon ñëppay am. agenda boobu moom comme ni ko monsieur le maire waxee rek lañ koy defee parce que dañuy ñëw ànd ak ñi ngay xam ne ñoom ñooy suñu kilifa rek ñu doxal ko ci yoon te ko ci yoon ànd ak ñun ñun moom ku ñu jàppale rek la ñu bëgg. ku ñu dimbali rek la ñu bëgg waa monsieur le maire nag boo xeloo ñu dañuy ñëw topp ci ginnaaw rek ànd ak suñuy kilifa rek xool nu mu gën a rafet loo gis rek comme mooy li ma la rek loo gis dina am ñu ciy gis seen bopp dina am ñoo xam gisuñu seen bopp ndax Thiès yi artistes yi ne Thiès artiste daanaka booy xool artistes yu mag yëpp Thiès lañ dëkk Thiès li fi ne ci artiste macha allah kon nga xam ne kon ñëpp mënuñu cee gis seen bopp ñii dañ ci gis seen bopp rek ñii duñ ci gis seen bopp loolu dong lay demee ñii dañ ci gis seen bopp ñii duñ ci gis bopp am ñoo xam bu la waxee sax naa la sax ba may réunion wala ba ñuy toog sax yëguma ko am ñoo xam question bi nga la am ñoo xam moo ne ko laajoon naa man yëguma ko sax yëguma ni sax monsieur le euh, woote na wala nangam nangam am na ñoo xam yëg nañ ko am na ñoo xam ne yëguñu ko. man yëg naa ko moom franchement. yow ci ban man ci domaine bi rek mooy sama culture yu jéembe. waa jéembe ak di xool samay partenaires yu tubaab ak di gën a yaatal samay liggéey nan la demee. koy foore deru bëy kenn du ko foore deru xar deru bëy lañ koy foore wala biche biche mooy yi xaw a niroog bëy biche boobu sax moo gën a neex boo amee deru biche yi ne ci mooy rab yi ne ci àll bi boobu sax moo gën a neex bëy mais benn la rek mais kenn du ko foore xar xar dañ koy wulli defal ci ay dàll wala ay saag wala ay ceinture deru béy tamit mën nañ koo wulli defal ci ay saag ay ceinture mais day am différence tuuti di nga xam ne kii deru béy la di nga xam ne kii deru xar la mais jémbe moom béy moo koy foor bu dee tama béy mën na koo foor mais deru mbëtt moo koy foor mooy tama yi ñuy bokk mais dañoo bàyyi sabar yi sabar day am peg sabar lañu waroon tëgg ci ay programme wala yu demee noonu mais dañ ciy dugal jémbe yi yaa ngi dégg yàq tëgg mi carrément carrément carrément carrément guinéen yi ñoo ko moom gine jémbe lu ci ëpp gine la jóge malien yi day tëgg jémbe Sénégal yi dañuy tëgg jëmbe euh, Mali euh, kii euh, Burkina bi dañuy tëgg jëmbe Ivoirien yi dañuy tëgg jëmbe Camerounais yi dañuy tëgg jëmbe ñëpp dañuy tëgg jëmbe mais jëmbe dëgg-dëgg Guinée moo ko moom. ñun moom suñu bu dee ci Sénégal moom ñun culture bi ak suñu am-am moom suufee na suufee na parce que bu doon nit ñi ñuul ñu kese la kon ñu bàyyi affaire yi mais lu ci ëpp ñun tubaab bi ñoo yore suñuy affaire bu tubaay bi day ñëw dañ koy gis naa naajement corona bi fi jaaree. yee nañ ñu bëree baree bëri ba ci artistes yu mag yi ba ci kilifa yi ba ci musiciens yu mag yi sax ah koo ci wax mu la say musiciens fi nii dañoo gàddaay parce que joué tuñu nagu ñoo dajale ñaari nit wala ñetti nit wala ñeenti nit ndax corona bi la chaque jour nga war di dund di fay ndox di fay courant et cetera et cetera kon corona bi moom yàq nu bëri ci culture bi mais culture moom ci tubaab yi la gën a doxe bu ñu ñëwee dañ ci gis suñu bopp bu ñu demee Europe dañ ci gis suñu bopp ndax yi moom moom daanaka moom la yàlla xam doy na waaw mën nañ koo gëm am na ñu ko gëm am na ko gëmul waaw loolu la tëju biir mu am nañ ko am nañ ko ku mel ni Baye Aada ak Joos ñoom dañuy dem France vraiment ñu ngi dimbali artistes yi te ñuy dem di couleur googu ñoom ñoo ko ŋàkk ñooyu kilifa yi lu ñuy def dañu ne woo ñu ñëpp ñu toog waxtaane ko comprendre nga lu ci mën di demee ba ci ndimbali jóge euh, ci état bi sax su ñëwee danaan lii fi ne ku nekk lii nga am lii nga am li nga am teg ko ci yoon. vraiment ñoom ñu ngi ciy bay li ñu gën li ñu man waaw ñoom ñu ngi ciy bay vraiment li ñu man muy bay jo bay aada ak ak joos ñu moom vraiment sonn nañ ci culture bi lool lool lool ak ñeneen ak ñeneen Macky nag moom jàmbaar la waaw Macky moom vraiment mi ngi ñuy dimbali jàmbaar la te vraiment mi ngi def li mu man daal waaw mi ngi def li mu man xanaa mu gën a yokku rek loolu naan yokku cere dolli ñeex rek. moom maa ngi leen ñaax di leen ñaax ni leen culture yi moom nañ ñëw gëstu rek nañ dem euh, lu mel ni Palais des gaa yaa nga fa na dem centre culturel bi nekk ngent en face boo passé police moo ci topp gaa yaa nga fa aussi lu ñu dégg tamit ci journaux yi wala télé yi ni ñoo nga fa ñoom ñu ñëw fekk si ñu gën a góorgóorlu rek xam ni eh, artiste moom patience la ku yàkkamti bokkoo parce que buy neex dalay bett ñi ci am ay xéewal ak ñi ci am ay taraanga yëpp toloon moom moment boo xam sax dañ leen dox moom ñii dañ leen di tardé rek yee tege leen a bàyyi mais suy ñëw da lay moom affaire u la waaw nañu góor góorlu rek euh, gën a taxaw ndaw yi moom vraiment euh, dara yombul surtout moment bii ñu tool dara yombul mais nañu góor góorlu rek dem ci centre yi gën a gëstu gën a taxaw ku defee yàlla mën naa def daal lépp baax incha allah. merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal loolu moo xewoon fii nii euh, ñu seet si woon benn artiste culturel bu mag nekk fii nag fii si coté SEM Idrissa Diop tey nag ñu dalaloon ko nag ki defar moom benn genre waxtaan mu wax ñu tamit xamal ñu lan mooy culture nettali nañu jaar jaaram nag loolu moo xewoon tey jii seen émission nag bii nga xamante ni ñu ngi koy mu émission bu bees la tudd si jant bi di xewee fii si euh, seen chaîne YouTube ba Actu Thiès ñëw leen ngeen seetaan ko ngeen tamit euh, parta ngeen abonné wu ngir mën a ni prochaine émission yi euh, émission yu yu am solo ngir yéen loolu moo fi xewoon tey jii nag bon ñees ñu leen di jaajëfal si beneen émission.